gàtt yi les plus grands journalistes du monde occidental journalistes yi gën a mag ci àdduna bi madame Touré journalistes yi gën a mag ci àdduna bi nekk ay nasaraan suñu wàccee Iran dañuy kolu parce que ni France taxawee ne voile du fi am ah. noonu ne doo fi voilé wu boo taxawee Champs-Élysées voilé wu tubaab yi ñëw taxaw seere si eh, euh, kii sonal la mais boo wàccee Iran da ngay kolu boo ñëwee Sénégal da nga war a am noo war a mel mais Sénégal na comme ñun dañoo ñun mu ñooy ñun. roy dàq dañoo xam teraanga nag. roy dàq. teraanga roy dàq roy dàq exact après c'est compliqué. mais moom a avait de de bonnes intentions. pour le Sénégal malheureusement même Senghor avait de bonnes intentions. mais mais dañ leen dañ leen tënk. ki leen tënk nag kon bëri na doole lool. ndaxte ah. ay ponkol eh, ci wàllum xam-xam ak kàttan eh, ku la tënk rek ah. am na pexe. dafa fekk ñu nangu ko asma. Ah. Hmm? ñun ñoo ko nangu. ñun ñoo baissé les bras. quand hmm? même suñu nguur gi ñoom ñoom ñooy baissé les bras. très bien Aïcha ci 2012 li ñuy daal di àddu Baye Sane l'homme d'affaires et PDG euh, du groupe Sud Communication mu di Babacar Touré temps Touré Touré nañ fees nañ éphéméride <laughs> bi ah ñoom sax éphéméride bi sax daf may sot leen. <laughs> <laughs> Aïcha mi ngi noonu on reste en 2012 justement pour parler de l'homme d'affaires PDG du groupe Sud Communication Babacar Touré à 61 ans est nommé président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel maanaam CNRA euh, il succédera à la magistrate Nancy Ngom Ndiaye euh, euh, kon moom euh, Babacar Touré di ñaan yàlla rek yàlla na suuf oyof ci kawam amiin allahumma yàlla yeesalaat yërmandeem ci moom yaakaar naa ni képp ku dem rek ba am fitu def liggéey bi di journalisme wala bëgg ko sax ah yaakaar naa ni roy nga ci moom wala moom impacté na sa choix boobu de profession. moom moom ak Sid Lamine euh, daanaka bokk nañ ci ñi ñi ñi ñi propulsé li nga xam ni mooy la presse privée. Mhm. Euh, Sud FM en 94 euh, à partir de 93 le président Abdou Diouf libéralisé rajo privé yi ñu sur la bande FM Dakar FM qui a démarré en 90 je pense et et après mais kii. ñun suñu classe gi ñu mel ni ñun Baye Ale ñaa mbay Mbaye Anamo Babacar Ndoye sama mag jooj moom euh, Ibrahima Diédhiou RTS Maymouna Ndiir RTS Juliette Ba ak ña sa des ñoo ñaap ñun ñaap Babacar Touré mii moo sos ISIC institut supérieur des sciences l'information et la communication ñu jaar foofu <laughs> Euh, maa ngi nuyu surveillant ba mag ba Babacar Ndiaye. c'est que Pa hmm? quand il parle. de <laughs> ce qu'il a construit on sent la fierté. ah bien sûr de euh, il faut que j'emmène un imitateur. <laughs> qui puisse tous les jours dorénavant. vous êtes d'accord de fierté. xam nga daa am si xol. waaw ah, Babacar Touré mi damay damay gis ni ñi ñi ko ameel dañoo bare. ñi ko amel dañoo bare. xulil xulil gis naa suñu professeur yële Abdou Latif Coulibaly ñoom El Hadj Amidou Kassé ñoom Abdoulaye Ndiaga Sylla ya mag yooyu. Maajoor Fall bi nga xam ne jóge na fii ñu ngi kaa ñaanal yàlla xare xare aljana aljana gën a kawe. amiin waay. Euh, maa ngi xalaat euh, kenn ci sunu ay aîné koo xam ni bokk na si ñu ñu doon dimbali ci wàllu cursus. Mm. muy Ibrahima Fall. nekkoon fële ca Imal Fat groupe sud ak ñeneen ñu mel ni ñoom baax na ñu leen di fàttaliku ci jaare ko ci ki nga xam ni moo la Babacar Touré bi nga xam ni tey ñu bëri dans les amal na